آه، الحمد لله والعبد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والجاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك جلتي بوك تالبي ñu ngi leen di nuyoo di leen ziyaara di leen tatagal ci seen beneeni tomb ci waxtaan mooy fàttali li nga xam ne moom mooy gravité bi nekk ci bor ak li ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam tëkku ak euh, solution yi nga xamante ni bokk na ci yoo xam ne ku ko saxoo yàlla dina musal ci bor te bépp bor bu tegu woon sa kaw yàlla dina dimbali noo ko fayee njëkk ngay génn àdduna euh, yenent bi sallallahu alayhi wasallam ku doon muslu la ci bor ci julli bu nekk ak balaa muy tëdd daan na ko tamit moytuloo saxaaba yi yenent bi ci julli boo xoolee ñaan bi mu doon def ginnaaw salaat ibrahim am na ci parti boo xam ne da doon wax allahumma inni audu bika min al maasami wal maghrab yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci bàkkaat ak bor ndax bor day ñuulal kanamu gor ndaxte bu la nit toppee ci sa bor rek dina dem ba di ko daw wala di ko digloo dul def wala di ko wax loo xamante ne du dëgg yooyu yëpp bokk na ci loo xam ne sax jaar na tax nit daw bor waaye bi ci gën a ragallu mooy xadis bi nga xamante ni jaabir ibn abdullahi radiallahu anhu moo ko solo jaabir nee na maata rajulun fa gassalnaa وحنطناه وكفناه وذهبنا به وأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فخطا خطاه فالتفت وقال هل عليه دين فقلنا نعم ديناران فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الرواية قال صلوا على صاحبكم فتحملهما أبو قتادة رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم قد أوفي الله حق غريم وبرئ منها الميت فقال نعم يا رسول الله فصلى عليه بين حديث بي عبد الله بن آه، جابر بن عبد الله موقصلو رضي الله عنه نيونا صحيحين موي مسلم بخاري جابر نينا دا فا بن مبوك جوليت بو جمعنا جامانو يونت صلى الله عليه وسلم ني سانغوكو دفكو ديويني دفك بارفون waaye ñu sàngu ko ñu indil ko yonent bi sallallahu alayhi pour mu jullee ko te xam nañ ne alquran wax na ne inna salawaatika kanul lahum xamal ne yow sa julli texe la ñeel leen moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne yonent bi dox ñaari jéego ci kanam pour jiite aji dee si mu gertu moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne est-ce que dafa amee bor ñu ne waaw ñaari dërëm ñaari dërëm nañu bàyyi xel ci loolu yonent bi ñu ne ko ñaari dërëm diinaar ci ñoom mooy dërëm donte ne seen xaalis moo ëpp suñu xaalis waaye dinaaraani ñu ne ko ñaari dërëm la yor bor xadis bi raawi bi ne fan sarafa rasulullah rek yenentu bi dëppaat beneen riwaaya yenentu bi sallallahu alayhi wasallam ne sallu ala saaxibikum jullee leen seen néew bi maanaam man du ma ku amee bor nañu xoolaat gravité wax bi yenentu bi yàlla subhanahu wa taala daf ko ne wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yóndiwu la lu dul ñeel mindee fii te yonent bi ku mu jullee nga texi waaye sababu ñaari dërëm kese bor tax na yonent bi bañ a jullee benn néew abu qataadata xam chance bi waa ji nar a ñàkk abu qataada ne yonent bi man gàddu naa ñaari dërëm yi maa koy fay yonent bi ne garanti nga ne wàccoo na ak boroom yow mi yaa koy fay abu qataada ne naam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jullee ko waaye li ci gën a doy waar mooy yeneentu bi ci lendemain bi rek la gis abu qataada ne ko noo def ak ñaari dërëm yi mu ne ko yenentu bi kii démb rek la gaañu di yenentu bi sallallahu alayhi ne ko xamal ne du nekk ci jàmm mukk moom kii dee noonu donte ne nee nga danga kaa yenu waaye du nekk ci jàmm mukk fii ak fayaloo ko ñaari dërëmam yooyu noonu loolu jar na tiit moytu bor ak lu mu tuuti tuuti tuuti beneen bi euh, yenent bi sallallahu alayhi wax na ci xadis ñëw na ci ahmad ahmad moo génn xadis bi yenent bi sallallahu alayhi dañ kaa laaj ne ko est-ce que ku dem jaayante sa bakkan ci yoonu yàlla pour l'islam jëm kaw est-ce que yàlla dina la baal say bàkkaat yépp yenent bi ne ko waaw bu fekkee ne jublu jublu nga ci noon yi xeex ak ñoom dawoo delluwoo gannaaw yàlla la baal say bàkkaat yépp ba ci kanam bi ne ko loo wax kooku laajaat ko laaj bi yonent bi ne ko yuxfaru lichahidi kulla zanb illa dayn mu ne ko chahid mooy ku dee ci yoonu yàlla mu ne yàlla dina ko jéggal ay bàkkaatam yépp ba mu des bor ba mu des bor imagine toi koo xam ne jaay na bakkanam ngir yoonu lislaam te nit ki amul lu gën a rëy bakkanam waaye jox na bakkanam yàlla ngir yoonu lislaam yonent bi bàkkaatam yépp yàlla dina ko ko jéggal ba mu des bor kon jar na moytu yonent bi nag sallallahu alayhi wax na ci beneen xadis ne man am amwaala annaas yuridu adaaha addallaahu la képp koo xamante ni jël na alalu jàmbur ji alalu jaamu yàlla yi maanaam lebu na te am yéene fay ko yàlla dina ko ko fayal moo tax Baay Ñas radiyallahu anhu bu daan lebu da doon wax allahumma bika bika tadaayantu faqdi lii loolu jar na jàpp tamit allahumma bika tadaayantu faqdi lii allahumma bika tadaayantu faqdi lii mu ne yàlla ci yow laay leboo maanaam li may lebu dafa fekk ne lebu dagan na moo tax ma koy def kon maa ngi lay ñaan nanga ma ko fayal boo delloo fale ci yaa rabbi bi zaati wa bi sifaati yi defoon nañ fi ñaan bi keroog bàyyi mu ngi wax naan wanzur ilayna wansuranna diina addi xuquuqana wa addi dayna wanzur na nga xool yow yàlla ilay ñaa jëm ci ñun na nga ñu xoolee bëtu bëtu ñeewantal bëtu yërmande bëtu cofeel wansuran wansuran na diina na nga dimbali tamit suñu diine ji waaye mu ne addi xuquuqanaa na nga ñu jox suñuy wërsëg na nga ñu yaatalal suñu wërsëg wa addi daynaate na nga ñu fayalal suñuy bor loolu pour bàyyiloo xel nit ñi ci gravité bi nga xam ne moom moo nekk ci bor yàlla nañ ci yàlla musal beneen bi mooy bokk na ci yi nga xamante ne nit ki bu ko saxoo yàlla dina ko musal ci bor mooy bëri di julli si yenent bi sallallahu alayhi benn xissa bu ndaw la ñuy wax donte ne nag xissa bi am na ñuy dàkk naan wérut ndax lan dañ kaa gisul ci benn téere loolu erreur la boo xam ne borom xam yu bari dañ ci daanu xam nga boo demee ci alquran xissa aad aad ñooñu aad yàlla wax na ko ci alquran mais scientifiquement amul ben fo xamanteni amna luñ ko mëna prouver que ne nit ñooñu amoon nañ te alcorane lu wax yeb deug la mais dañoo lool ci bir alcorane yàlla ba muy wax ne wa amma aadun fa uhliku bi rihin sarsarin aatiya saxaraha alayhim sab'a layalin wa thamaniyati ayamin khusuma fatara tara alqawma fiha sar'a ka annahum acjaazu naxlin xaawiya yàlla dem ci tek moy fa hal tara lahum min baqiyah ñi ma lay waxal ni nak est-ce que gis nga desit ci ñom jeexital sen jeexital est-ce que gis nga ko ci kaw suuf yàlla ba muy wax lolu science amagul tay nak ay scientifique bëgg weddi aya bi bëgg weddi histoire bi ndax gisaluñ ko ben source ben ben jeexital ben asar fekk yàlla waxon na ci alquran bu yàgg ne yonente fa hal tara lahum min baqiya manam amul desaluma dara ci ñom bama leen jeexal dama leen jeexal histoire yi tamit parfois mu am fekk ken bindu ko ci téré dañ koy paasante ci nit ñi tey amalu ahlil madina boo gisee imam malik di ci jëfandikoo ñëwul ci ay ahadis mais da ci doon sukkandiku ndax lan ay mbooloo ñoo ko doon toxal di ko jox ay mbooloo ñooñu di ko toxal di ko jox ci ay mbooloo waaye binduñu ko ci téere jamono yooyu kon qissa bi liñ ci gën a soxla mooy euh, dafa am benn taxass wu muy def ci doomu aadama pour muy julli si yonent bi sallallahu histoire bi diggante benn benn waay la woon bu ñàkk ak benn commerçant ak benn qaadi qaadi moom mooy juge waa ji jamono dafa jafe ci moom lool bor yi bari ci moom lool nit ñëpp ñëw nag di ko sëkkatoo naan ko na leen fay mu dem ci benn jaaykat mu lebu ko masalan cinq cent mille mu jël cinq cent mille yooyu noonu fayee ko bor yi ba mu jeex ba deseetul dara léegi borom bor bi daf ko ne woon jour na jour tàngam jour sàngam dinaa ñëw jëlsi ko ba jour bi jotee mu ñëw mu ne ko amande ah, yoruma dara kooku dem ci juge bi boole kaak moom juge bi woolu ko ne ko ana alal bi nga war a jox kii mu ne ko aw ma kooku ne ko kon dama lay tëj mu ne ko dama lay ñaan yow juge bi balaa nga may tëj naka ma bàyyi ma dellu ci sama njaboot wax leen ne dañ maa tëj comme saa ñu bare xaar ci man dara kooku ne ko lan mooy garanti ne su ma la bàyyee di nga ñëwaat mu noppi xamul lu muy wax ba ci kanam mu ne sama garanti mooy yenentu bi sallallahu alayhi wasallam seedeel yow juge bi bu fekkee ñëwaatuma seddal ne man bokkuma ci xeetu yenentu bi juge bi ñettu yàlla la xam na bu baax garanti bi ni mu ni mu màggee ak ni kii li mu wax ni mu réyee mu ne ko demal ba suba nga ñëw kooku ba mu yegsee mu ne soxnaam si man kat dañoo àtte ci man kaso damaa war a tëdd kaso mu ne ko léegi nan nga def ba ñëwaat mu ne ko dama jaayanteeg juge bi ci yenentu bi sallallahu alayhi wa su ma ñëwatul su ma ñëwaatul na seede ne man bokkuma ci xeetu yenentu bi sallallahu alayhi wa soxna si yàlla may ko tawfiq moom itam moo tax soxna su baax lu jara ut la soxna si yàlla may ko tawfiq tam ne ko ah comme que ci barke yenentu bi la la bàyyee ñëwal ñu toog ñu julli ci yenentu bi sallallahu alayhi ñu toog di julli ci yenentu bi sallallahu alayhi wa far nelaw këf leen ñu nelaw waa ji gént yenent bi sallallahu ci nelaw bi yenent bi sallallahu alayhi boo demee na nga dem ci ministre bi nga ni ko man maa ni na fayal sa bor bi bu la jox ko dalil bi nee ko yenent bi sallallahu alayhi mu ngi lay nuyu nee na naa la xamal ne chaque guddi da ngay julli ci moom fukki junni yoon démb ci guddi nag dangaa dangaa tardé defoo salaatu yooyu waaye na nga xam ne yàlla indi na ko ci man fekk mu ngi mat bam ko waxee loolu waa joy dem génne cinq mille jox ko ne ko fayee ko sa bor génne waat deux mille may ko ko kooku dem jubali directement ci qaadi yi ba mu yegsee fekk qaadi bi mu ngi sawar lool pour dajeeg waa ji naan ko yegsil ci sa barke gis naa yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni ma bu fekkee fayal naa la sa bor bi moom dina ma ràmm suba yowmal qiyam am 500000 mu ngi nii fayee ko sa bor fi ñuy waxee pareeguñu rek buntu pale bi buntu bi nga xamante ni foofu mooy tribunal bi di ñu ngi koy fëgg fëgg bu yéeme ba ñu ubbee rek ndeke commerçant bi doon jël si alalam moom moo doon ñëw ba mu yegsee rek mu song waa ji fóon ko ne ko ci sa barke gis naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ma ne bu fekkee ne baal naa la say baag baal naa la sa xaalis bii nii. Euh, dina ma ràmm suba yowmal qiyaam baal naa la ko te yeneen cinq cent mille tamit mu ngi nii may naa la ko ñu xool ci gàttal waa ji diggante bi rek am na ci douze mille cinq cent douze euh, maa ngi naan douze mille am na ci un million deux cent cinquante mille am na ci un million deux cent cinquante mille te borom yëpp yàlla teggil na ko ko mu ngi ko amee ci barke julli si yeneen bi sallallahu alayhi wa te moom ci benn guddi rek la julli naka nag ki nga xamante ni dafa saxoo di julli si yenent bi sallallahu alayhi wasallam di def tawassul ci julli boobu noonu pour yàlla dindil ko mbooleem jafe-jafe yooyu yàlla dindil ko mbooleem ay borom kon loolu solution la pour nit ki nga xamante ni dafa am ay bor dafa am ay jafe-jafe àdduna wa xaasatan weer wi nga xamante ni moom lañ jublu di rabiil awal di chahru nabi sallallahu alayhi wasallam kon nañ ciy gën a bëri di julli si yenent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yenent bi sallallahu alayhi wasallam foo waxoon na ne saxaaba ba ba mu koy wax ci mbirum julli ci yenentu bi sallallahu alayhi wasallam yenentu bi daf ko ne idan tughfaru dhanbak wa tukfa hammuk boo jullee ci man comme ni nga ko waxee maanaam nga bëril di julli ci man mu ne yàlla dina la jéggal say bàkkaar te lépp loo xamante ne jàkkare la ñeel la yàlla dina la ko teggil yàlla nañu yàlla teggil mboolem jàkkare teggil ñu mboolem bor te musal ñu ci bi barakati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa bi barakati hada ash-shahr al-mubarak إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته